mbokk yi Serigne Pape Malick Sy ibnu Seydou Aboubacar Sy ne asalaamualeykum wa rahmatullah ne si ndigalu suñu ndigaay sëñ Mbay Sy Mansour mais sëñ Mbay Sy Mansour moo ko jox kàddu ni ko jëlal ne gannaaw buñ fi nag si turu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si xalif général des Tidiane fa tabarakallahu fekk fi mbokk yu baax yépp ne fekk fi bu baax kii sëñ Abdourahmane Mbacké tabarakallahu ne moom ak sëñ Abdourahmane mi ak sëñ Abdoul Fatah juróomi at. ne bokk nañu juróomi at. benn saal bu ñuy entraîner. benn saal bu ñuy entraîner. lu ñu jàng ko. ne lu ne ñu jàng ko. ne kon. miin nañu ko. moom mii miin nañu ko. fa tabaarakallah. lii ñu fi dajale nag. ne lii ñu fi dajale ah, yàlla dogal la. nee na mu yàlla nee na Seex Seydi Haaji Si radiyallaahu taala anhu ne dafa daan wax ni. yàlla bu dogalee. yàlla bu dogalee. nangu ko nangu ko. mooy sakk. nee na mooy sakk. ndax boo gàntalee. ndax ne boo gàntalee. du tee li mu bëgg am li mu bëgg am. fa tabaarakallah. ne fa tabaarakallah. kii fi jógee nag. kii fi jógee nag. di Aziz Aziz Ndiaye Buuna. li nu koy muñe. ne li nu koy muñe. papaam papaam. góor gi Buuna Alburi. góor gi Buuna Alburi. moo ko digaloon Serigne Cheikh Tidiane Sy. ne moo ko digaloon Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy. góor gi buuna. ne góor gi buuna. dafa daan def. dafa daan def. weer wu dee. weer wu dee. mu yónnee Serigne Cheikh Tidiane Sy. mu yónnee Serigne Cheikh Tidiane Sy. 3000 francs. 3000 francs juróom-benn téeméer. te boobu Serigne Cheikh nga ca daara ja. te nee na booba Serigne Cheikh nga sa daara waaye mandat bi. waaye nee na mandat bi. du ci def turam. ne du ci def turam. bés. nee bés. sëñ Babacar Sy. sëñ Babacar Sy. wax sëñ Cheikh. wax sëñ Cheikh. ni ko mandat bi. ni ko mandat bi. ki la koy yónnee. ki la koy yónnee. te ci def turam. te du ci def turam. comme Louga lay jógee. comme Louga lay ñu nañu gëstu. nee nañu gëstu. ba xam ba xam. bi ñu gëstoo. nee bi ñu gëstoo. ñu gis ni. ñu gis ni. góor gi buuna. góor gi buuna. moo ko ko yónnee. moo ko koy yónnee. sëñ Babacar si wax ko ni ko. ne sëriñ Babacar si wax ko ni ko. kaay nga dem nuyu ji ko. ne kaay nga dem nuyu ko. yàlla àtte. ne yàlla àtte. mu dem seeti ko. sëriñ Cheikh dem seeti ko. waaye mu wax ma ni suñu waxtaan. ne waaye mu wax ko ni ko seen waxtaan. ma góor gi buuna. sëriñ Cheikh ak góor gi buuna. la ma ca gën a dimbali. ne la ka ca gën dimbali. góor gi buuna def ko wax ni ko. nee góor gi buuna daf ko wax ni ko. maa ngi lay ñaan. maa ngi lay ñaan. sa yaakaar. sa yaakaar. ci yàlla. ci yàlla. ëpp sa yaakaar. ëpp sa yaakaar. ci sa baay ci sa ba ak ëpp sa yaakaar si sa baay. ndax sa baay. nee ni ko ndax sa baay. di nga xëy. di nga xëy. ñu tàggee la ko. di nga xëy ñu tàggee la ko de. te yàlla kenn du la ko tàggee. te nee na nag yàlla kenn du la ko tàggee. nee na baat boobu. nee sëriñ Cheikh nee na baat boobu. dimbale na ma lool. dimbale na ko lool ba mu ko déggee si góor gi buuna. fa tabaarakallah nee fa tabaarakallah. bi ci des. nee bi ci des. anecdote la. anecdote la. sëñ Babacar Si. nee sëñ Babacar Si. moo ñu ko nettali. moo nee na dafa xëy rek. nee dafa xëy rek. ñu ni ko góor gi buuna ñëw na. ñu ni ko góor gi buuna ñëw na. sëñ Babacar nee na fekk fifteen nekkul ci so nee na keroog ba góor gi buuna ñëwee fekk na moom sëñ Babacar fifteen nekkul si poosam. mu ni tëbbuuna. nee na mu ni tëbbuuna na. añu gor. añu gor. dafa war ci moom. dafa war ci moom. ndax ni mu toll ci réew mi. ndax ni mu toll si réew mi. sëñ Babacar ne fekk am na ku ma dénkoon benn junni. nee na sëñ Babacar si ne fekk keroog bés boobu am na ku ko dénkoon benn junni. ni ko dafa am lu ma ci xalaat. ni ko dafa am lu ma ci xalaat. te bëgguma mu sànku. te bëgguma mu sànku. dencal ma ko. ni ko sëriñ bi dencal ma ko. sëñ Babacar ne man yaa. Ah, sëñ Babacar ne man yaa. Ah, naa ci dindi ñaari téeméer. naa ci dindi ñaari téeméer. ñu toggal ci buuna añ. ñu toggal ci góor gi buuna mi añ. mu ni booba ñaar téeméer. nee na mu ni booba nag ñaar téeméer. mën na añu gor. mën na añu gor. nee kii duggi marché dafa génn dem rek. nee kii duggi marché daa génn dem rek. borom junni ba <laughs> ne ma ni. nee sëñ Babacar nii. ma ni yàlla. yàlla. lii du kenn yowal. lii du kenn yowal. ndax rek. nee na ndax rek. bañ gi nga bañ ku laal ndénkaane jàmbur. bañ gi nga bañ ku laal ndénkaane jàmbur. nee ma jaaxle. nee na nag sëñ Babacar jaaxle. fu may jëlee ñaar téeméer. fu may jëlee ñaar téeméer. ndax jox ko borom junni. ndax jox ko borom junni bi teew. nee bi ma ñàkkee pexe. nee mu ni bi ma ñàkkee pexe nag. ma ni naa ko gis. nee mu ni naa ko gis ma. waxtaan ak moom waxtaan moom. nee ma recevoir ko. nee na mu recevoir borom junni ba. ñu toog nee na ñu toog. mu ni waaye bëgguma jàmmante bi jeex. nee na mu ni waaye nag bi ñuy toog yëpp bëgguma jàmmante bi jeex. ndax fu mu jeexee rek. ndax fu mu jeexee mu laaj junni mu laaj junni bi. nee ñuy jàmmante ba mu yàgg. nee na ñuy jàmmante ñoom ñaar ba mu yàgg. waa ji ni teg. nee waa ji teg. waxatul waxatul. ni ma sëriñ bi. nee mu ni ko sëriñ bi. loolu ma fi bàyyi woon. loolu ma fi bàyyi woon. dama bëgg boo ci amee soxla nga jël ko. <laughs> dama bëggoon boo ci amee soxla sax nga jël ko. ndax la ma ko doon doyee. ndax la ma ko doon doyee. yàlla faj na yàlla faj na aajo ba. daf ñu ko daan nettali. nee na sëñ Babacar di leen daan nettali lii. tabaarakallah nee ko tabaarakallah. bi mu génnee àdduna. mais bi mu génnee àdduna. sam papa Alhaji Mansour. papaam Alhaji Mansour. moo ko rob. moo ko rob. moo ko taxaw. moo ko taxaw. tabaarakallah tabaarakallah. yooyu yëpp. nee yooyu yëpp nag daje. daje. mag ñi mag ñi. ñu ci bari. ñu ci bari. seen cosaan seen cosaan. jolof la jolof la. Cheikh Hadj Malick. Cheikh Seydi Hadj Malick si. jolof la jolof la. sëñ Touba. sëñ Touba. jolof la jolof la. Alhaji Ablaye Niass. Alhaji Ablaye Niass. jolof la jolof la. tabaarakallah tabaarakallah. ñoom ñëpp. nee ñoom ñëpp. suñuy mbokki bopp lañu. suñuy mbokki bopp lañu. Ah. lii nag lu yàlla dogal la. nee lii nag lu yàlla dogal la. te sëñ Cheikh jamono bu ne. nee te sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si jamono bu ne. daf may wax ni ma. daf koy wax ni ko. koo ñàkk. koo ñàkk. bu sa xel demee ci bàmmeelu yonent bi. nee bu sa xel demee si bàmmeelu yonent bi. nga war koo muñ. nee nag nga war koo muñ. loolu rek. nee na loolu rek. la ñuy ci kii fi jóge. la ñuy tëral si Abdoul Aziz mii fi jóge. cëram. jërëm ku bëgg a wax fii ne ku bëgg a wax jëru Abdoul Aziz fii fii la la jant bi fii la lay jant bi di fekk tabaarakallah wa tabaarakallah Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye ñu di ko massawu ne di lay massawu bu baax waaye di massawu suñu bopp ne waaye tamit di massawu suñu bopp moom mii ne moom Serigne mii waxtu wu ma mësaan ñëw ne waxtu wu mësaan ñëw ci Serigne Cheikh ci Serigne Cheikh ma ne ku fi ne ne mu ni ku fi ne ñu ni ma Serigne Ndiaye bu ne ñu ni ko Serigne Ndiaye bu dem doxi sama nee na day dem doxi soxlaam. ndax xam naa dañuy yenn. nee na ndax xam na ni bu ma Serigne Ndiaye ñëwee dañuy yenn. fa tabaarakallah fa tabaarakallah. yàllaa ko booleeg Serigne Cheikh. mais kii yàllaa ko booleeg Serigne Cheikh. yàgg na lool yàgg na lool. tabaarakallah fa tabaarakallah. ñu ngi jéggalu. nee tamit ñi ngi jéggalu. kilifa yi fi nekk kilifa yi fi nekk. bu dul woon lii Serigne Babacar si wax. nee bu dul woon lii sëñ Mbaye Mansour wax. dinaa wax ni ko moom waxal. damay bàyyi. nee day bàyyi. moom sëñ bi toog wax. ndax. Hadj Mansour wax ndax li Hadj Mansour Mbaye wax léegi. dëgg la dëgg la. mag la. kii toog magam la. ndijaay la ndax ndax. mook soxnaa sukkan. ndax mook soxnaa sukkan. ñoo bokk tabara Cheikh. ñoo bokk tabara. Cheikh ak Abdoulaye Cheikh ñoo bokk tabara Cheikh. ak Abdoulaye Cheikh. ak Abdoulaye soxna Asou mii waajuru sëñ Pape Malick ñoo bokk benn maam. ñoo bokk benn maam. mu di sunu muy seen dajaay. waaye di sama xarit. waaye nag nee na di xaritam waxoon na ko sa gàmm ko. ñu yàgg lool nee na yàgg na lool lool moom boobu kay baabaar fu mu toog wax ko. yàgg tabaarakallah tabaarakallah. tabaarakallah. ah te yàlla na ba Ba Malick ne yal na yàlla bàyyi ñu fi ba kanam lool lool lool amiin. ba a kanam. bàyyi fi ñëpp. ne bàyyi fi ñëpp. ba ca kanam a kanam ba ca ñu ngi jaal ñëpp. ne ñu ngi jaal suñu bopp di jaal suñu bopp di wu sëriñ di masawu sëriñ fa tabaarakallah góor gi buuna góor gi buuna njabootam a njabootam yëpp kër Seex Xaaji Maalik la leen tudde kër Seex Sëriñ Xaaji Maalik la leen tudde Njaay buuna mii Si Njaay sëriñ Mbay Si Njaay moo nekk si ay papier tabaarakallah nee yal na yàlla dolli jàmm amin yàlla dolli sutura nee na ndax turandoom Cheikh El Hadj Malick Cheikh Seydi El Hadj Malick si dafa daan wax ni booy ñaan booy ñaan da ngay ñaan lu sakkan da ngay ñaan lu sakkan te bañu ñaan lu bari te bañu lu bari ñu ni ko lu sakkan mooy lan ñu ni ko lu sakkan si mooy lan mooy sutura nee na mu ni mooy sutura amiin yàlla na ko yàlla defal ci biir ak ci biti allahuma salli ala sayyidina wa sallam